ñu daal di dem ci la xewoon assemblée nationale démb di euh, càkkuteef goo xam ni waa PDS doon nañ ko sàkku ci ger gu ñu doon tuumaal daal ay juge yu ñu def ba tax na démb sax ñetti euh, kuréel wote nañu muy PDS ak euh, taxaw bu Khalifa Ababacar Sall ak APR ba tax daal mbir yee fa mu mujj daal mooy mujj nañoo wote luwaa ba ñu dem xoole élément bu fa tukkee ti dellusiwaat man yàgg naa wax ci mbirum eh, injustice bi nga xam ne naufrage bi nga xam ne moom la justice Sénégal dëkkee ma ne bu fekkente ni conseil constitutionnel Sénégal ci réclamation yi nga xam ne teg nañ ko fi muy yi ñu teg yi bu àtte woon leneen lu wuuteeg li mu àtte bu boobaa la ñu war a duut baaraam conseil constitutionnel parce que le droit a été dit sur la réclamation que j'ai porté le droit a été dit contre la réclamation portée par le candidat du pouvoir à partir de ce moment l'Assemblée nationale du Sénégal bi nga xam ne moom moo voté woon moom moo voté woon la loi sur le parrainage ici confier au conseil constitutionnel le contrôle du parrainage mënuñu taxaw tey di naan dañuy weddi le droit qu'on a confié au conseil constitutionnel de contrôler les parrainages erreur bi mu ngi jógee ba ngeen demee assise dialogue national jàpp ni tout va rouler comme sur de l'eau de l'or. Vous avez fait face à la justice de ce pays. C'est une honte, je dis, que l'on invente des allégations pour mettre en place une commission d'enquête parlementaire. Il n'y a aucune preuve qui a été apportée, aucun début de preuve. Sinon di sosale ay nit comme ni ñu comme ni ñu yàgg a sosalee bépp gor bu taxaw di défendre Sénégal. Et je m'adresse à cette nouvelle coalition en gestation. qui veut reporter les élections et perturber l'ordre constitutionnel de ce pays. Et vous êtes en train de vouloir programmer un coup d'État constitutionnel en voulant reporter des élections. Nous disons non au report des élections qui se tiendront à bonne date. wala mii noonu kooku doon wax mooy Thierno li xew lépp nag daanaka Thierno moom moo tax mu am ndax moo sàkk woon daal ak leeral ci mbiru double nationalité yi amoon ci mbirum Abdou Karim Wade gannaaw baat jiñ ñeen ko lu nekk ba jiñ ñi amadu Ba mi ma gis ci commentaire yi ñu naan Amadou mooy Assane Assane euh, euh, di ko bind Amadou moom lañ ko jiiñoon ni Amadou Ba moo nekk loolu lépp am na coalition bi muy eh, junj ci biir it muy ci diggante taxaw wàllu ak PDS defe naa ni eh, yaa ngi ko doon dégg noonu ci biir ay xeexoo nag jotoon na faa bëgg am ba sax cerno mi nee na dina yóbbu ci yoon jaara faam mi nga xam ni jëlalu na ko koket fa yéene woon ko koo capat capatee waaw. waaw cerno de <clears throat> bu demee si yoon it wax dëgg yàlla du mujj fenn te loolu yaakaar naa ni waru koo sax wax ndax koket bi dalu ko koket bi bi ko jaara summee gii mari ko tatafu mu rëcc yàlla koket wa da koo tegaat suuf kon koket bi dalu ko te koket bi normalement da ko waroon a laal. ndax it ensemble bi dañoo sonn si àtt bi waaj nañoo xeex dañoo war a xeex ndax loolu ginnaaw loi mayee na ko ci ab assemblée. non su ko mayoon duñ ci ay député. non dañuy xeex de. mais tëj nañ ci ab député. non ñooñu kumba am na léegi bu fekkee ne ensemble bi. li nga waa PDS démb waroon nañoo mën a xeex ak Thierno ci xeex bu metti ginnaaw moo leen yóbbee lii. Hmm. mais Thierno démb ñoom suñu Cheikh Thioro laa gis ñu rawale ko ubbi buntu ginnaaw boobu moo xam ne ko dawal te waa PDS dañ ko nar a koj kon Thierno xeex bi nga yaakaar dëgg la. Hmm? xeex bi dëgg la. ah dóor de amu si te normalement dañoo war na dóor. dóor dafa war a tax man la est-ce que xeex bi dëgg la wala bu ko sànni bu Thierno waafee mën naa jàll sa Amadou Mame Diop loolu dafa war na am dafa war a na am daal xeex dafa war na am mais xeex amut mbuccoo xubbaloo nangam nangam xaj nañ bu fekkee ne am na lu nekk si suuf lu waraloon ñu jéem a xeex ak yooyu loola du jàpp ndax xeexuñ dañoo waroon a def loo xamante ni kat dana jot président Macky Sall jóg pour wax ca loola mais wuñ fi lu jar président wax ci loolu nga mbir si de bi mu fi dóoree Ousmane Sonko mbir si la. yaa gis dóor bi. Hmm? yaa gis dóor bi. non moo ko wax. waaw bi mu fi dóoree Ousmane Sonko taxut président Macky Sall wax kenn waxu te ndax dañ ne mbirum ensemble la. Hmm. kon euh, lii bu amee jëpp naa ni daal euh, sony bu lu fi waroon a jaar la jaar na fi waaye daal lu mel nii bu demee bay am lañ ko war a def si farata daal. d'accord hmm. ban jàngat nga def ci journée démb bi loi bi mujj naa jàll Assane sax jëfe naa bëggoon naa yaakaaroon naa dinañ ci xuus mais xuusu ci loi bi mu mujj na jàll euh, mu des nag enquête bi ci war parti yi ma la limalit ñoo jàpp ca mbire ba euh, téeméeri député woote muy taxaw bu Khalifa Ababacar Sall PDS euh, muy wallu bu PDS ak APR. waaw bi jàll. 120 députés ah voilà. merci loi bi jàll crédibilité lay yokk lay yokk kii bi rek. ralliement bi PDS war a def pour ñu ne loi bi jàll na léegi ñu ci ru mandat leneen loo xamante ne da wóor ne la euh, takk day am parce que li fi tax ñu yëf yi di takk mooy am na foo xamante ni fii waa APR yi duñu ci topp PDS waa taxawu yi ci toppit duñu ci topp PDS waaw parce ku ne xam na ni Khalifa Sall moom na bokk rek la bëgg donc bu ay députéem voté c'est parce que dafa bëgg a bokk ca mbir ma. waaw maanaam ca pàccoo après militant yi nga xam ne ñooy militant PDS yi. ca pàccoo ba nga xam ne bu ñëwee waa APR. jàpp nañ ci maanaam ñoom seen continuer boobu. dañoo bëgg a séddoo. maanaam dafa bëgg a maanaam wane ni taxawu na leen jàppale na leen. looloo tax ñoom it ñu daal dee suivre daal dee loolu mais am na foo xam ne bu ñu fa yeggee ñi nga xamante ni bii ñooy waa APR peut-être mën nañ bañ a topp parce que ci biir député yi am na ci ñoo xamante ni bii tey Amadou Ba lañ gën a jege ci beneen candidat boo xam ne mën nañ koo tànn député yooyu am ci biir ci biir député mm-hmm. am na ñoo xam ne Amadou Ba lañ gën a jege ndax jege boobu nga xamante ni moom lañ ko jege nag tey lan lañuy tegaat ba tax ñu mën a. delluwaat ci Macky président Macky ndax dafa am leneen lu fa mën a am xam nga moom laa la wax démb ne la lii ñuy tuumaal parce que ki ñuy tuumaal kenn la dañu wax ne dañu am ay te man PDS dañu soupçonné rek man gëstu gisuma benn preuve boo xam ne génne nañ ko buy firndeel ni lii ñuy jiiñ am nañ ko. vraiment gisaguma fi dara loo xamante parce que démb ñoom ba ñëwee amul leen loo xamante ni wane nañ ko ba léegi ci soupçon rek lañ ne. dañ ne soupçonné nañ ñi am na ñaari di juge yoo xamante ni bii dañ leen a ger te ki ñuy wax ni moom mooy gere mooy kat mooy candidat Benno Bokk Yaakaar. Mm-hmm. comprendre nga. tey jii candidat Benno Bokk Yaakaar boobu su fekkente ni dëggal nañu ni moom dafa gere mm-hmm. luy doon ëllëgëm. luy ki gere. waaw luy doon ëllëgëm dañ naan gere rek léegi kii nga. kon donc moom Amadou Ba moom bu fekkente ne bi dañ ne yëf yi dëggu na moom <laughs> mooy kon élection yi ñëw moom du ci bokk. waaw loolu mooy li nga xamante ne bi mooy lay am du dëkk kon moom dañ koy élimine waaw bu dee am na kon ëllëgam lan lay doon moom amadu Ba. bu dee am na ñu report ah, bu dee am hmm. bu dee li ñu koy jiiñ ñi am na. non report élection yi moom buñ ko sax dugal ci wax ci. yaa ngi dégg léegi ñoom. ndax dañu bëgg wax loolu ba noppi même bu fekkee ne reporté wuñu élection yi. ñu daal di koy ginnaaw bi ñu ko saraxee ba pare. ñu daal di utiliser waat seen beneen. candidat wala Amadou loolu la mbir mi. di Amadou ñàkkee na xel. waaw moo tax ma ne leen ñoom xam nga nag ñoom dañu war a def très attention ci Amadou depuis gis nga APR gi hmm. man dama defe ne ñoom xamuñu amadu hmm. waaw parce que xam nga par exemple gis nga nit ki da nga wax Amadou Ba. du jógewut neewut cëpp lay juddoowut APR dafa ñëw wàll si waaw Amadou Ba ci ginnaaw bi mu wàllsee mu dem ba bi ñuy tànn candidat ña juddoo APR ak yooyu yëpp ñu wàcc ko fa ñu wàcc leen fa tànn ko mm-hmm. lan moo ko tànnlu Amadou Ba en tout tout cas ñoom ñii dem gis nga fi mu toll nii seen xeex bi ñuy xeex ak wëndeel ak jéem ak kër yeeg yooyu lépp mën na retourner contre ñoom parce que bu boobaa Amadou Ba mu teg ay jéegoom bari na lool am na nu muy doxalee ay mbiram ci biir. mën naa ami pexe war nañ ko xoolaat parce que bu ñu demee ba président Macky bàyyi bëgg-bëggam def leneen loo xam ne bi biir na ñëpp ne lii bugg ko mm. li ko ko defloo loolu lu garaaw la xam nga nag ñu ngi ànd rek ñoom ñaar di ree peut ñu ngi koy tegal ay dëgg sërëx fu ñu dem ñu sacrifier Amadou waaye Amadou moomu mën na nekk ëllëg li nga xamante ni bi mooy seen jafe-jafe te gis nga sooy bu alaaji ñii ñëpp tey jafe-jafe yi ñu am yëpp xam nga man dama la yàgg a wax fii ne la hmm. Ousmane Sonko mooy ki nga xam ni moo gën a maîtriser Macky Sall ñi nga xam ni yàgg nañoo nekk ak Macky maanaam dañ koo xamut tamu xam ko wax yàgg naa la ko wax fii maanaam parce que ñii ñëpp wëndeel na leen boo seetee président Macky Sall kenn dong la fi musta tëgg wëndeel mooy Ousmane Sonko ba léegi xamul nu muy doxalee moom comprendre nga mais ñii ñëpp ku ci nekk xam na li nga bëgg maanaam xam nga ku nit ki bu xamee li nga bëgg ah xam li ngay bañ day yomb pour mu def loola moom li mu bëgg hmm. comprend ga président Macky Sall loolu la xam xam na gars yi li ñu bëgg xam na li ñuy bañ. léegi nag da leen di mën a defloo moom li mu bëgg moom. parce que yor na pouvaar bu ko mën a tax mu def loo leen ay bëgg-bëggam. li ko dal ci sonk nag mooy dafa xamut lu sonk bëgg maanaam li mu njort woon ni moom la sonk bëgg léegi Sonko wan na ko ne ko bëgguma lii muy nguur dafa defoon ni sonk dafa bëgg nguur comme moom. Mhm. mais ci kaw mu tànn jomaay léegi moom yëg na ni kon ndekete waa ji lii ñoru ko. parce que Amadou moom dafa mel ni foofu nga baal ma Amadou dafa mel ni moom mi ngi waaj élection yi moom. non Amadou ba mi ngi waaj. arrière de ndax Amadou. tegut euh, benn jéego arrière. Amadou ci sëriñ si maa ngay wër <laughs> ñu ngi naan ko dinañ la jàppale Amadou ci waykat yi. waaw gis naa waykat bu mu jaala woon yaayam sax wax na fa yu bari bañ na ko dinañ la jàppale. Mhm. maanaam Amadou daal mi ngi fépp moom dafa mel ni mi ngi waaj. moom mi ngi ci député yi waaj mbiram ñii nag dañoo yëgut li xew ñii ñoom ay pion lañ rek yu ñuy dox hmm. ñuy xaabar xaabar yi defe ne ñoo yor yëf yi comprendre nga. mais Amadou mi ngi ci ay mbiram te ci li mu nekk noonu. mais guerre bi mën na koo sonal de. guerre ban. guerre koy tuumaal mën naa sonal ki nga yaakaar ma xool koy sonal dem kay. ah attention. fu muy def Sonko bi bu ñu ko saxalee bindal. non mais c'est xam nga bind de ban <laughs> xam nga man li may wax mooy Amadou. xam nga ki ay mbiram nëbb. moytu ko. Mm-hmm. xamaloo ko dara. te mu ngi ci sa biir pendant des années. di liggéey nga jox ko ay ndomba tànk yoo xamante ni bii am naa relation ku ne. Mm-hmm. ba noppi te fësalut lenn. waaw Amadou amul bëgg-bëgg. Ah, ku jara a ragal la nag. Amadou ku jara a ragal la gis nga parce que moom xam na Macky saltoog toog naag moom ci façon bu ne xam na ay point fort ak ay point faible la bu baax a baax a baax maîtriser na ko donc boobu moo gën a gaaw bis bu ñu déclenché denru xeex boobu mën na metti ci ñoom lool lool ah lool lool te fi mu toll nii ñu ngi xuus rek ba léegi mm-hmm. waxut waaw nañ ah moom ak lu ñu ko mën a def ci parti bi ñu koy ŋàññ ak du toll mm-hmm. nañ ko moytu de da nga jàpp ni carte gi mën na dëpp ah non mais ñoomu neen la maam mi jàpp ne moo daanaka Sonko lañ jéem rek mu dal ci kawam alaaj nag ba noonu alaaj xam nga laaj rek alaaj yi hmm? kàddu gi mën naa dëpp naa ba na. waaw nga ne maam moom moom moo moo ko kii de. maam Mbaye lu koy ah, ne nii. xam nga ñooñu ñëpp Assane. Hmm? jàkkaarloo naa moom kay. nii nii xam nga ñoom dañu xamul nii dafa am fu ñu toll gis nga jeu bi fi ñu toll ak yooyu yëpp day ciy jouer maanaam fin temps la yaa ngi dégg gis nga équipe yi benn équipe bëggut a dem prolongation hmm. fin di match lañ bëgg a yegg hmm. comprendre nga hmm. léegi nag lii ñuy créer ay penalty yi dernière minute yaa ngi dégg waaw ay bitu ordo bu ñuy valider <laughs> yooyu ñuy bëgg a créer nañ def attention ci yooyu ñuy créer waaw mën ngaa xeeb xal mu lakk sa dagg d'accord loolu mooy li nga xamante ni bii mooy. kon daal ñemewoo Amadou. ah man ñoom man lu ma ci ñemee rek ñoom. non seen bopp ñoom ñoo ko man. seegal laa wax ak man ñoom laay wax. ñu moytu ñu moytu ko. maanaam ci naka bu ñu koy moytu. wallaay dañ ko ah dama laa wax dama laa wan jaar jaaru waa ji wala ne la juddoowut kii te dem nañ ba bi ñu tànn ñu tànn ko te ki koy tànn leer na leen ni neexu ko. kon xam nga ni loolu ñu ko mën a jàngale ki koy tànn neexu ko. billaay neexu ko bëgg koon tànn moo tax après mu bàyyi ñii ñëpp di wëndeelu doole jooju fu ko Amadou waaw moo jaaxal ñëpp doole jooju nag ban doole la force boobu ban force sa nekk ci Amadou ban force moo nekk ci ginnaawam loolu la kenn xamut te nag nañ fexe ñoom ba buñ ko xam waaw kon moo doon ñoom daal dinaa fexe ba ñi waaju lay élection moom Amadou parce en tout cas xam nga même député yi cohérent wuñ quoi bëgguñu pousse élection yi ah waaye affaire bi na leer Amadou moom dafa set mais xam nga yëf yi maanaam buñ jëloon keneen sax ne koo kookoo takkal Euh, kii wala comprendre mhm. maanaam dañu bëgg benn problème mhm. ñu am ci solution mhm. te duñ ci am problème te problème bi ñoom ñoom ko maanaam dañ cee bëgg a régler yeneen problème maanaam tey dañu bëgg a jël problème mu Karim Wade régler waale ci problème bi APR am d'accord comprendre maanaam dindi waale Amadou dootu nekk candidat daal na boo xam ne bii warta ne parce que gars yi duñu ci comprendre nga ba noppi ne dañ ciy réglé waale problème Karim maanaam dañuy réglé Karim Wade seeni problème ba noppi yokkaale ci euh, bëgg cee yokkaale waat mais suba daal demaale ci prolongation mais ak lu ñu mën daal suba la lépp leer. suba balaa samedi daal. <laughs> suba lépp leer dinañ pare. Hmm. li ñuy def. Euh, fii ak samedi dimanche bi ñuy euh, commencer campagne bi daal. en tout daal na nit ñi dem jëli ji seen i carte yii yëpp bu ay kii la rek. d'accord na nit ñi dem jëli ji seen i carte te daas préparer allahu rabbi campagne bi ubbi gis naa gars léegi ni nga xam noonu la commencer campagne bi. Mm-hmm. am na ñoo xam ne moom tàmbali nañ. ayca waaw te suñu ñu tamit dañuy xaar bés bu campagne bi la xaar ñu démarrer xam nga fi campagne bi démarrer gul officiel. Mm-hmm. boo démarré démarré na boo démarré démarré na. parce que daanaka moo ne fépp. comprendre nga ñoo ñoo ñooñu ngay gis dafa ne démarré mais. macha allah yeneen ñi ngi toog.